téléspectateurs de la 7TV ñu ngi leen di nuyu c'est encore un plaisir de vous retrouver dans votre émission avocat le droit à votre service émission bi nga xam ne moom mooy traiter les cas les questions juridiques mais aussi l'actualité de manière générale mais nag tey dañoo bëgg ñëw ci benn actualité boo xam ne ça fait ça fait l'actualité depuis quelques moments xam ne mooy l'affaire Covid 19 maanaam la République donc pendant li nga xam ne mooy le Covid 19 donc dafa génne woon benn ko aux impactés du Covid 19 mais après dans quelque temps donc gis nañ ne donc la Cour génne benn rapport donc di fustiger un li nga xam ne mooy la gestion bi nga xam ne moom moom lañ ko waroon moom lañ ko waroon defee donc ci loolu ñu bëgg si waxtaane mais aussi waxtaane ci ay points yu bëri bëri bëri ci wàllum aspect économique ci wàllum aspect social mais aussi ci wàllum homme politique ak sunu invité nga xam ne c'est Babacar Diamé nga xam ne c'est un expert comptable mais aussi un ancien député maire actuellement président de la commission de surveillance au niveau de la caisse de dépôt et de consignation tey moom la ñu dalal Babacar ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu les téléspectateurs de la 7TV. waaw merci beaucoup monsieur maa ngi lay gërëm bu baax. di la wax dalal jàmm. Mm-hmm. pour échanger ak yéen sur euh, les points que vous allez soulever. Mm-hmm. l' actualité au plan économique social et politique. Mm-hmm. di leen gërëm baax di leen sant di nuyu aussi euh, les différents responsables de la télévision. Mm-hmm. Euh, madame Maïmouna Ndir que je connais très bien. Mm-hmm. voilà donc. Euh, vous dire que euh, je suis à votre euh, comme ni ma ko waxee un peu à l'entame de mes propos dañu bëgg ñëwaat un peu si Covid 19. parce que mm. depuis bañ ci defee li nga xam ne mooy rapport bi la cour des comptes après bi dem entre les mains de la justice waxaatuñ ci lu bëri bëri moo tax nag tey en tant que expert comptable bëgg nañ ñëw vraiment sur les aspects techniques du rapport. nga mm. andi ñu quelques éclair éclaircissements donc tout d' par rapport ak le l' affaire ban appréhension ban. ban sentiment ngay am par rapport ak l'affaire d'abord. waaw euh, xam nga <coughs> Covid bi dafa ñëw ñu euh, modifier mm-hmm. vraiment euh, comportement comportements de manière radicale. Mm-hmm. <coughs> ñëw na euh, dans une situation où euh, Sénégal comme beaucoup de pays commencé woon nañ di entamer leur croissance économique. mais avec la Covid ya y a eu le ralentissement de l'activité maanaam liggéey bi dañ ko liggéey liggéeyee liggéeyuñ ko liggéey wàññeeku baax euh, euh, conséquence bi aussi xamoon nañ ko parce que euh, donc feebar baa fi. Mm-hmm. ñëpp a daw feebar bi ñëpp a ngi moytu activité wàññeeku na. Mm-hmm. koom-koom bi wàññeeku na donc am am bi wàññeeku na mën mën yi mën mën yàngeeku na. wàññeeku na mais besoin yi wàññeekuwuñu. dëgg la parce que besoin yi mu ngi fi ba léegi. Mhm. mu ngi fën ba léegi euh, donc euh, je pense que dëkk réew mu nekk jël na ay dispositions pour vraiment euh, lutter contre les conséquences de cette pandémie Covid-19. Mhm. Sénégal bi pandémie bi ñëwee le président de la République après plusieurs réflexions. dafa jël benn mesure radicale mooy euh, prendre de disposition yoo xam ne pour euh, donc lutter contre la pandémie lutter contre la pandémie voir sur le plan de la santé déjà naka la ñuy def pour mettre ñi nga xam ne ñoo war a faj les infrastructures sanitaires ci conditions yoo xam ne dañ mën a recevoir des malades conditions yoo xam ne dañ mën a aussi bien prévenir la maladie euh, donc euh, trouver des vaccins euh, donc acheter des équipements acheter des médicaments renforcer la capacité des acteurs de la santé mm-hmm. donc loolu yëpp dafa nekk loo xam ne dafa demander woon moyen fekk na budget état bi déjà voté woon nañ ko parce que ça s'est passé vers le mois de février mm-hmm. mars 2020 donc ci ci euh, le président bi euh, mettre en place donc une ligne euh, de crédit boo xam ne c'était pour permettre une ligne budgétaire pour faire face donc au, au donc au, au, à la prise en charge ah. justement de cette maladie bon donc des moyens ont été ont été ont été déployés euh, l'État a mis en place un fonds Covid fonds boo xam ne état def na ci. acteurs yi def nañ ci. les personnes de bonne volonté aussi def nañ ci. Mhm. Euh, donc euh, la gestion du de de de de ces fonds a été confiée donc au ministère de de l'économie à l'époque et des finances. Mhm. boo xam ne bon euh, mënoo ko laal te jaaroo ci ministère de l'économie et des finances. mais nag il fallait aussi des mesures d'accompagnement. Mhm. parce que xam nga euh, au niveau de Sénégal de au niveau de l'espace UEMOA chaque État a adopté ce qu'on appelle le code des marchés publics avec des procédures euh, très claires euh, nettes et précises et bu ñu seetee Covid bi y avait des cas d'urgence il fallait régler les urgences nit ñaa ngi feebar di bëgg a doo toog di di xool. en plus y avait les impactés ñi nga xam ne aussi seen liggéey daf ko laaloon. ci Covid bi aussi seen liggéey bi dafa wàññeeku. parce que mhm. mëntu liggéey. xam nga ci Covid te ñu commencé euh, à appliquer la la digitalisation. Ouais. Euh, l'amélioration du de la de la digitalisation pour que nit ñi mun a toog seen kër. Mhm. te duñ dem seen bureau. Mhm. donc loolu yëpp dafa laajoon euh, donc une nouvelle disposition boo xam ne. c'est état bi rek moo ko mën a jël. c'est là où le président de la République avait sorti un décret euh, qui est une mesure dérogatoire euh, pour quand même que ñu bañ appliquer de manière stricte mm mm-hmm. euh, donc le code des marchés publics donc ça veut dire que il y a un décret portant dérogation mm -hmm. aux dispositions réglementaires du code des marchés publics yombal ko mm-hmm. acteurs yi nga xam ne ñoo ñoo war a commander ñoo war a commander Euh, le matériel. nga war a commander les médicaments. yi nga xam ne moom la ñu war a utiliser pour faj nit ñi pour faire de la prévention. et pour trouver les voies et moyens pour donc euh, lutter de manière efficace contre cette pandémie là. contre cette pandémie. donc je pense que loolu nekk na loo xam ne lu am solo la. Euh, donc euh, donc euh, vraiment c'était très appréciable. Mm -hmm. et ça a permis quand même. au Sénégal de lutter avec efficacité donc à la lutte contre donc de lutter contre la pandémie. contre la pandémie mais après après c'est-à-dire bu ñu gisee l'initiative c'est-à-dire c'était une bonne initiative de la part du président de la République. Mmh. donc pour aider li nga xam ne mooy la population mais aussi pour augmenter les moyens pour ñu gérer li nga xam ne mooy Covid bi mais dañoo gis ne après la Cour des comptes dafa génne benn rapport mu ne donc la gestion a été. catastrophique c'est-à-dire amoon ay problème yu bëri yu ci am ba ñu jox li nga xam ne mooy dossier entre les mains de la justice donc ñoom si benn benn point boo xam daf siy génnaat c'est-à-dire entre les DAGE ak li nga xam ne mooy les ministres cest ku nekk di sànni sa morom la foofu noonu buñ ci buñ ci taxawee lan mooy responsabilité DAGE bi ak responsabilité ministre ci li nga xam ne mooy la gestion ak li nga xam ne mooy l'utilisation des fonds publics. bon xam nga dans la gestion des fonds publics. Mm-hmm. il y plusieurs acteurs qui interviennent. surtout la commande publique. Mmh. D'abord, il faut voir que euh, avant l'ordinateur donc euh, des dépenses mmh. euh, c'était le ministre des Finances, de l'économie et des Finances. Mmh. Mais après cela, on a constaté que qu'il fallait quand même que les ministres euh, puissent être responsabilisés euh, pour vraiment la gestion des deniers qu'ils reçoivent. C'est dans ce cadre-là que donc l'ordonnancement donc des dépenses a été transférée mmh. donc vers le ministre donc le ministre est l'ordinateur réel des, des dépenses mmh. donc euh, ça veut dire qu'il assume la responsabilité des fonds qu'il reçoit de la gestion des fonds qu'il reçoit mhm. mais il n'est pas directement impliqué dans l'exécution réelle il est euh, donc il est l'ordinateur ça veut dire tout simplement Mm-hmm. alors rien ne doit sortir du ministère mm-hmm. sans qu'il soit au courant moom mooy acter tous les dépenses mooy acter toutes les dépenses mm-hmm. mooy signer les contrats mooy approuver les contrats mais sous euh, donc euh, euh, la subordination des collaborateurs parmi les collaborateurs il y a d'abord comme vous dites le DAGE le DAGE c'est un directeur de l'administration générale c'est lui qui a la gestion de la de de de de, de la commande publique la gestion donc de tout ce qui est euh, commande au niveau du département ministériel. Euh, donc euh, euh, mais il ne commande pas parce qu'il y a une commission des marchés publics qui assure la gestion réelle de la commande publique. C'est-à-dire c'est elle qui assure euh, donc la commande publique en faisant toutes les recherches nécessaires, faire la commande, recevoir, etc. Il y a des commissions de réception qui sont là, qui reçoivent la commande publique. il y a le comptable public. Le comptable public n'est pas d'âge. Vous comprenez Le comptable public, son rôle, c'est de contrôler mmh. la régularité des opérations. C'est lui qui est chargé de comptabiliser les opérations mmh. sous sa responsabilité. Mmh. Mais avant de comptabiliser, il doit procéder à toutes les vérifications nécessaires qui sont prévues par les dispositions réglementaires. Mhm. Euh, donc, à ses côtés, il y a le Trésor qui gère les deniers. Mhm. comptable n'est pas forcément le trésorier de l'institution. Ouais. Dans certains cas, le comptable peut assumer la comptabilité et le, euh, euh, la perception en même temps. Mm -hmm. Il est percepteur et comptable, surtout dans les collectivités territoriales. Mm -hmm. Mais qu'il faut euh, en termes de responsabilité. Mhm. le premier responsable c'est le ministre. waaw parce que mooy le nombre de personnes yi nga xam ne ñu ngi ñu ngi yëngu ci li nga xam ne mooy l'activité parce que vous avez énuméré le ministre le DAGE donc le comptable il y a le trésorier responsabilité bu ñu cest le ministre qui est beaucoup plus responsable que les autres. Euh, le ministre est responsable parce que c'est lui qui est ordonnateur de la dépense. Mhm. c'est sous sa responsabilité que les crédits ont été mis en place. Mhm. Comprenez? mais il n'est pas forcément impliqué dans la gestion. Dans la gestion. Mhm. Vous comprenez? Mhm. C'est le DAGE qui a la gestion de la commande publique. Mhm. C'est lui qui, avec la commission de de de, de la commission euh, des marchés publics, euh, fait la commande publique. Euh, une fois que la commande est faite, euh, toute la procédure appliquée, c'est-à-dire commande, livraison, certification, mm-hmm. parce qu'il y a la commande, il y a la livraison, la certification. Mhm. Il y a une commission de réception euh, de la commande publique qui en fait certifie ce qu'on a commandé a été effectivement reçu. C'est le comptable public, euh, euh, euh, procède au contrôle. moom day con comptable bi moom day day contrôler. Mhm. ndax est-ce que les biens d'abord est-ce que amoon am autorisation. d'abord nécessaire. Mhm. deuxièmement. deuxièmement voir est-ce que. li ñu livré ko. Mhm. d'accord est-ce que la réception est conforme est-ce que la commande est conforme est-ce que la facture facture bi def nañ ko. donc moom mooy jouer le rôle de contrôle. absolument waaw mhm. mooy jouer le rôle de contrôle non seulement dafay jouer contrôle mais day mhm. enregistrer l'ensemble des documents comptables ci euh, donc soit informatique ou bien dans les livres. donc euh, moom a quand même. Euh, donc au rôle important parce que il doit contrôler euh, la bonne régularité des opérations. et dans ce cadre-là bu ñu ko annulé un dossier boo xam ne wóor na ko ne lii c'est pas régulier bu ko neexee mu refusé ko rejeté ko. Ah, mm-hmm. donc il n'est pas lié. Mm-hmm. comprendre nga maintenant bu fekkee ne dossier bi c'est pas régulier. Mm-hmm. mu accepté ko liquider ko. ba gars yi fay. sa responsabilité engagée donc loolu da ci mën a loolu da ci mën nekk amoon na tamit benn régime dérogatoire bu ñu installé woon. ci situation boobu noonu. mais lan mooy régime dérogatoire c'est-à-dire c'est une absence wala c'est de total de règles wala de wala wala am na ay règles minimum yoo xam ne war nañ ko mën a. respecter waaw xam nga euh, en fait euh, mm-hmm. euh, les comptables publics sont accrédités auprès des ordinateurs. gendarme moom laa wax mooy collaborateur direct des des ordinateurs. Mmh. pour les besoins euh, la pandémie. Mmh. la gestion de la pandémie Covid-19. Mhm. il y a eu un décret 2020 781 du 18 mars 2020. Mhm. portant justement euh, donc c'est un régime mhm. les dispositions du code oui la dans sa rigueur dans mhm. mhm. parce que tey bu fekkee da nga bëgg dafa am ñu feebar nga war ay médicaments tout de suite. nga bëgg a appliquer toute la procédure. Mhm. d' appel hmm? euh, la mise en concurrence. la vérification de tout et de tout day day liggéey bi. c' est vrai c' est dans ce cadre là que le président avait sorti ce décret. en disant que tout ce qui est travaux. tout ce qui est fourniture et certaines prestations. eh ñi nga xam ne ñu la commande publique mun nañ bañ a appliquer euh, le le code des marchés publics. Mm-hmm. et et ce ce dérogatoire. a permis à toutes les institutions de la République. Mm-hmm. c'est-à-dire les ministères les collectivités territoriales. Mm-hmm. Euh, à faire les commandes de de médicaments. à faire les commandes de matériel. Euh, et à régler euh, tous les besoins. liées à la gestion de la pandémie. donc mu accélérer un peu la ah. cadence une très bonne chose. Mhm. et et euh, ce régime a existé. Mhm. entre le mois de mars et donc le mois de le de de de de, de septembre. de septembre. Mhm. puisque le décret date du 18 3 décret est arrivé le septembre. vous voyez. mars avril mai juin juillet août septembre à peu près six mois. sommes pas corrects. Ouais. Euh, le 16 septembre, le président a sorti un autre décret pour abroger le régime dérogatoire. Mm -hmm. Parce qu'on a considéré qu'entre le mois de mars et le mois de septembre, mhm. vraiment, tout ce qui devait être fait, fonds immobiliers généraliens, mhm. nit ñi jën nañu war a jënd accompagner nañu euh, ñi nga xam dañ feebar. Mhm. def nañ aussi la prévention renforcer nañu euh, capacité yi au niveau des hôpitaux. pour vraiment avoir de bons plateaux techniques pour mieux recevoir donc ñi nga xam ne dañ feebar. ñi lañu feebar maintenant. Mhm. maintenant euh, donc euh, euh, régime boobu <clears throat> c'est grâce à ce régime. que le problème de la pandémie a été réglé au Sénégal mais nag il paraît que ce régime c'est-à-dire entre les six sept mois yi nga xam ne moom la ko mettre en place. Mm. donc ci la ñu bëri aussi utiliser donc cet régime dérogatoire pour def des des malversations aussi dafa mel ni. waaw la Cour des comptes son rôle mooy de contrôler la bonne régularité des dispositions réglementaires des opérations la Cour des comptes sur cette base-là formule des opinions et fait des propositions euh, <coughs> aujourd'hui euh, man mënuma confirmer ne irrégularité am na dans le processus parce que c'est pas vérifié c'est pas encore vérifié mm-hmm. euh, Cour des comptes génn le rapport am na des institutions yoo xam ne qui ont été ciblées. Mm-hmm. et dans ces institutions il y a le ministre il y a certainement le DAGE il y a les comptables mm-hmm. mais à quel niveau se situent. les responsabilités. voilà kon mën jàpp rapport du compte de la Cour des comptes ay doute la yoo xam ne. dañ ko war dañ ko war a confirmer. rapport de con rapport de rapport bi dafay constaté. Mm-hmm. par exemple constaté nañ na par exemple lii war na facture amul facture. comprends sur la traçabilité surtout loolu. amoon na aussi problème trop lii euh, waroon na comptabilité des matières parce que dites-vous bien que. l'origine de de l'organigramme n'exclut pas l'application des règles et lois. maanaam tey euh, euh, dans la commande publique dans la gestion des deniers publics il y commission des marchés. il y a la cellule de passation de marché. ça n'exclut pas l'intervention de ces personnes-là. Ouais. c'est pas le ministre qui commande la commission. des marchés moom mooy commandé ah sous la supervision de la cellule ah qui est en même temps donc rapporteur de la commission des marchés léegi nag euh, bu ñu commandé boo commandé day am contrat. waaw est signé par qui par le ministre parce que c'est l'autorité contractante. Mmh. c'est l'ordinateur mais l'exécution c'est pas le ministre qui exécute. Mhm. c'est le DAGE qui exécute. Mhm. Ce n'est pas le DAS qui comptabilise, c'est le comptable qui comptabilise. Il y a ce qu'on appelle la comptabilité des matières. Maanaam tout ce qui est commandé, réceptionné est comptabilisé par le comptable des matières. Donc il y a la traçabilité à la fois de ligne commandée parce que il y a d'abord euh, euh, le l'appel Euh, parce que même booy commandé da ngay da ngay demandé nit ñi ñu solutionné. c'est vrai ah da ngay nit ñi demandé ñu solutionné. bu fekkee dañoo nekk ci régime dérogatoire il faut. am minimum minimum il euh, euh, peut-être un appel concurrence maanaam am nga possibilité. Mhm. par exemple def un choix. désigner un opérateur boo xam ne yaakaar nga ne capable na de réaliser le marché. Mhm. nga jox ko jox ko ça veut dire que doo def boo doo commande. ça ne veut pas dire que doo def contrat ça ne veut pas dire que doo def euh, doo enregistré contrat bi mm-hmm. loolu yëpp dafa am procédure boo xam ne day am commande am contrat boo amee contrat bi nag bu nekkee travaux la ah dañu war a exécuter les travaux mm-hmm. bu dee fourniture la dañ ko war a livrer mm-hmm. day benn commission boo xam ne moo recevoir travaux yi wala moo recevoir fourniture donc vous que y commande y contrat il y a l'exécution du contrat. Avant l'exécution, il y l'approbation, la signature du contrat par le ministre. ou le le le l'autorité contractante. bu ñu ko contrat bi léegi nag fournisseur bi. fay livrer. wala mu exécuter les travaux. bu livrer day am beneen commission bu ñëw pour constater effectivement livré nañ ko. bu ñu mu def facture am. mu def facture ci facture bu defee facture bi. Mhm. facture bi dañ koy certifié. waaw dañ koy certifié. maanaam dañ koy certifié pour wane ne effectivement lañ commandé livré nañ ko conformément à ce qu'on a commandé. donc xam nga loolu am na traçabilité. am na traçabilité léegi nag mhm. ba ñu livré wala ñu ñu ñu ñu livré wala mu exécuté travaux yi. day am commission boo xam ne mooy constater que effectivement livré nañ euh, wala livré nañ travaux yi wala livré nañ fournisseurs yi. léegi document yi yëpp dañ koy rassembler jox ko comptable foofu la foofu la problème ba parce que rapport bi dafa ne am na am na am na ay dépenses yoo xam ne yu bëri dañ ko def mais traçabilité amul c'est-à-dire amuñu facture amuñu amuñu contrat aussi foofu noonu c'est-à-dire sànq yaa ngi naan ma si la ministre mooy l'ordonnateur de crédit tey jii nii xanaa bu fekkee ne moom ordonné na c'est-à-dire traçabilité c'est-à-dire c'est du rôle donc du comptable wala ñoom est-ce que foofu noonu la seen responsabilité. di génn aussi waaw mun naa xam ah, nga le ministre n'archive pas les documents. waaw ordinateur. Mm-hmm. dans ce cadre là moom mooy signer contrat yi. Mm-hmm. donc muy commande bi nga xam ne def nañ ko. Mm-hmm. Euh, su paree ko jébal euh, nga xam ne ñooy def commande bi. la commission des marché ñoom bu ñu commandé ba pare léegi nag c' est surtout ça c' est la responsabilité de l' administrateur. le DAGE. l' des commandes l' administrateur des crédits c' est le DAGE moom mooy administrer loolu yëpp. donc moom mooy superviser tout le travail de coordination. donc il a quand même une responsabilité importante. parce que il doit d' abord se conformer aux dispositions réglementaires en matière de commande publique. en matière de de gestion des deniers. maanaam duñ fay lu abattu. la gestion des lieux. duñ fay la wut duñ certifié luñ gisul. ah mm-hmm. donc boo xoolee processus boobu yëpp day jaar ci moom. day jaar ci commission bi nga xam ne moom moo ko coiffé la commission de réception. Mm-hmm. donc moom am na un niveau de responsabilité. Mm-hmm. léegi nag ki nga xam ne mooy comptable parce que dafa am ay processus y a la liquidation. la liquidation de la dépense. de la dépense. liquidation boobu. comptable public moo ko moo koy def moo koy def comprends nga li koy mooy confirmer que effectivement opération bi ñu réalisé dëgg la autorisé nañ ko am na réception am na bon de commande am na contrat même contrat bi dañ ko enregistré am na contrat am na réception am na PV de réception pou justifier un respect donc en ce moment là moom mun na viser en sécurité comptable public pour wane ne li nga ko addil aw lu waaw pour bu fekkee léegi nag. moom dafa commettre une erreur. Mhm. il faut pas confondre erreur et fraude. mun mhm. na commettre une erreur. benn lu ko échappé. bu mhm. boobaa Cour comptes moom mu ñëwee loolu yëpp processus bi da koy vérifier. bu benn document manqué rek da ko souligner mais du wax ne fraude la. da ko souligner ba pare. d' à ce que ñu fournir document yi. bu mu document yi mu am un élément d'appréciation c'est est-ce que méngoo na ak li procédure wax su méngoowu ak moom en ce moment mun na formuler opinion wane ne li nga xam ne demande na ko méngoowul ak li ñu andi su boobaa nag il peut avoir formuler opinion wane ne quand même irrégularité mm-hmm. irrégularité kan moo ko commettre est que daaj bi la est que comptable public la ou est-ce que percepteur. est-ce que dafa am beneen problème boo xam ne dama ko ci gis aussi ci rapport c'est-à-dire dañ ne li nga xam ne mooy le montant initial bi nga xam ne moom la ñu nan la ñu mën a concevoir aussi aspect bi ni aspect bi ni mel. xam nga dans la gestion des fonds publics. Mhm. il y a ce qu'on appelle bi mooy li nga xam ne moom la ñuy sukkandiku. Mhm. pour wax ne lii la war a def ci at mii di ñëw maanaam investissement yeeg. dépense de fonctionnement yëpp dañ ko war dugg ci benn benn kayit ñu approuvé ko bu ñu ko approuvé pare ministre na ko approuvé ministère du na ko approuvé bu ñu ko approuvé pare da nga ne léegi nag le budget devient exécutoire maanaam jox ko ministre bi ministre si jëbal ko daaj bi daaj bi day def lu ñuy wax tableau de bord maanaam budget bi daf koy am ci tableau tableau boobu moo wane ne budget 2023 bii de janvier à décembre nii la koy exécuté je commence par cent tous les mois damay seet li ma consommer ma génnee ko ci tous les mois ma des mën na li ñuy wax la situation d' exécution budgétaire mhm. normalement situation yi bu ko defee correctement mhm. warta am dépassement warta am dépassement donc warta am dépassement ci maintenant il peut y avoir des cas où mhm. nga budgétiser une urgence devant une situation Covid bi. parce que Covid bi dafa arrivé au mois de février au mois de mars 2020. le budget a été déjà mis en place. tu comprends donc budget bi mën nañ ko place forcément il y a eu ce qu'on appelle la révision budgétaire maanaam état bi dafa être obligé de revoir son budget. et faire ce qu'on appelle un budget rectificatif. pour que rectification budget bi mun li nga xam ne moom la yaakaar ne moom la dépense ci période Covid maintenant euh, euh, dépassement wotaam waaw ah, mun na am aussi. mën na mën na am c'est une c'est possibilité. parce que day am benn ligne boo xam ne. Mhm. cent la woon sa besoin cent dix la. waaw boo dépassé dix dépassé nga. mais loi bi may na la nga def pour une même une même famille ce qu'on appelle virement de crédit maanaam da nga seet benn ligne de crédit boo xam ne. wóor na ma ne wóor na ne consommation ba doo ci àgg nga teg foofu yokk nga fàtte fa donc loolu ce sont dafa laaj régularisation dafa laaj autorisation maanaam euh, le ministre peut l'autoriser mm-hmm. mais dafa laaj régularisation mm-hmm. de déggee ñu naan euh, le la loi de finances rectificative yi nga xam ne assemblée nationale da koy signé mooy état bi day dem pour mois de juin mu def sa situation d' exécution budgétaire mm-hmm. seet ne kat exécution bi bu ci naree continuer dana li mu war a dépenser dana ëpp li nga xam ne euh, moom la yore actuellement mu ne nag léegi ah dinaa rectifier sama budget mais à condition que dépense supplémentaire bi nga xam ne war naa ko exécuter maam ressource am ah non dépassement budgétaire boo ko déggee day am ressource complémentaire mhm. parce que bu amul ressource complémentaire doo ko mën a exécuter. doo ko mën a exécuter mooy bu amee dépassement day benn ligne léegi nga ne virement crédit maanaam jëlee fenn. nga équilibré yóbbu fële mhm. pour équilibrer. donc ce président Macky Sall je pense que dañuy un peu clore un peu ce ce ce point. président Macky Sall annoncé na ne vraiment du bokk deux mille deux mille vingt quatre mais est ce que mën nañ jàpp ni après deux mille vingt quatre dossier bi nii mën na dossier boo xam ne la justice va le régler. mais xam nga euh, xam nga euh, euh, tous les dossiers qui sont en suspens. Mhm. au niveau de la justice. Mhm. du fait du principe de la continuité. de l'État. de l'État. moo mm-hmm. revenir dossier bu ñu clôturé day que ce soit un dossier euh, sur euh, donc la la la justice que ce soit un dossier sur euh, les parce que déjà vous savez que mois de février 2024 dañ dem élection. bon de 2024 sera déjà mis en place. Mm-hmm. kiy jël dafay continuer rek. day continuer mais bu considéré que budget war na ko réaménager. da koy réaménager mais li mu fekk dafay continuer. donc tey lépp loo xam ne dossier judiciaire la. parce que tey li nga dégg yëpp moom la Cour des comptes wax. Euh, pour le moment la justice a été actionnée. Euh, ñi nga xam ne ñoo war répondre ils vont répondre que ce soit les comptables publics. que ce soit les DAGE que ce soit le ministre lui-même. donc ku ci nekk waxtu ñu la ooyee da nga ne uyi lépp loo xam ne war nga ko justifier da nga ko justifier mais ah au moment où nous sommes mënul taxaw ne confirmer ne malversation am na à tel ou tel endroit c'est un problème de justification ah des dépenses par des pièces comptables par des pièces comptables donc que le président soit là ou pas mhm. euh, ce qui est sûr tous les dossiers en suspens vont revenir mën na mën na nekk mën nañ ko mën nañ ko aussi bañ a bañ a njot parce que le président de la république pousse na ku mel ni Amadou Ba pour mu yeggale li nga xam ne mooy mooy liggéey bi est-ce que moom aussi bu ñëwee est-ce que du nekk ci ci ci même siège bi aussi mhm. il l'a pas poussé euh, pour euh, donc mettre le coude mhm. euh, sous le coude les dossiers. parce que ñun aussi ñu ngi jàpp loolu. c'est-à-dire pour assurer la continuité. Mhm. de la mise en œuvre du programme Sénégal émergent. pour quand même. Euh, donc euh, euh, la meilleure satisfaction des besoins des populations. Mhm. mais à mon avis. c'est pas une raison. c'est pas une raison nit ñi ñu ngi ñu ngi xalaatee noonu c'est-à-dire peut-être dafay pousse mag ki nga xam ne mooy Amadou Ba pour mu ñëw régler problème yi nga xam ne c'est-à-dire pour mu assurer la continuité. de ce qui se faisait aussi c'est-à-dire que. Mhm. il faut reconnaître que le président de la République a une une sagesse. Mhm. quand même que koo xam ne tey. war na mun a taxaw ne man candidat laa mhm. fa ñëpp xaaroon képp ko ànd ak moom pour ñun président candidat day doon candidat dëgg la mhm. mais moom moom boppam mhm. na def ci Sénégal xam na def en Afrique xam na def dans le monde entier il a toujours plaidé pour la cause du Sénégal et de l'Afrique donc bu fekkee ne moom euh, am na ñoo xam ne tey mun nañ continuer li mu je crois que il est légitime pour moom. mu taxaw du candidat loo xam ne maanaam tey tout le monde la salué. tout le monde la salué. xëy na sax bu nekkoon candidat di nga diggaat ay situation yoo xam ne ah ingérable. regarde le cas de Gabon. c'est vrai. Gabon le président il est malade. malgré tout il s'est présenté pour la troisième candidature. mu mujjee mujj si li les conséquences. voilà donc moi moi je pense que vraiment. Mhm. il faut lui reconnaître. cette sagesse premièrement. deuxièmement euh, l'intelligence de partager. de partager avec euh, donc sa coalition. avec tous les leaders de la coalition. falaa bëggoon ñëw je pense que sama caméraman mi ngi naan le temps bi. mais li la bëgg mooy continuité ne veut pas dire. Mhm. du tout. Mhm. hein dans la position de Pierre ou de Paul. La continuité, c'est quoi mm -hmm. On a un programme émergent, un programme Sénégal émergent qui va jusqu'à 2035. Mhm. Le président a décidé de ne pas se représenter. Mhm. Le président s'est engagé dans le développement du Sénégal mhm. et de l'Afrique. Et tout ce qu'il a fait aujourd'hui, il faut pas que ça devienne dans l'eau. Vous comprenez Il a travaillé il veut que les gens arrivent à consolider au moins ce qu'il a fait, à continuer à mettre en œuvre programme pour une meilleure certification. loolu boobu. la war a loolu la ñuy jéem a mettre en avant. et loolu la ñu war a loolu mooy continuité. Mhm. na léegi nag bon euh, comme ni nga ko gisee bon am na ñeneen ñoo xam ne jóg nañ ñii ne candidat lañ. Mhm. ñii ne bokkuma nekkuma candidat. Mhm. chacun assume sa responsabilité. mu jeex tàkk mu jeex tàkk donc tey bon. Euh, va en citer quelques-uns. Mm. parce que Aly Ngouille Ndiaye est parti. moom dem na dès le parce que il s'était préparé. c'est vrai. il va assumer ses responsabilités mais bu sañoon mu soit. Mm-hmm. c'est pas encore trop c'est pas encore c'est pas encore trop tard. voilà Abdoulaye Daouda Diallo. Mm-hmm. a mûrement réfléchi. waaw il s'est rendu compte que tey euh, moom ak Amadou Ba benn lañu. parce que ñoo bokk seen impôt yi demoon. les mm-hmm. inspecteurs Amadou. ñu bokk ànd liggéey. président yi jàpp leen. coalition bi jàpp mbooloo bi kon mooy mooy doole. Ah ñu ngi lay remercier bu baax a baax Babacar. di la remercier di la jaajëfal bu ah, baax. di remercier incha allah si invitation bi jox la mot bi nga def sa dernier mot ñu ñu ñu ñu. clôturer waaw suma dernier mot mooy vraiment euh, d'abord remercier leen. Mm-hmm. je pense que contexte bi ñu toll nii communication lu am solo la. Mm-hmm. communication boo xam ne nii nañ wax. ngeen rechercher la vérité euh, la voie euh, aussi euh, bien véhiculée Euh, donc les bonnes informations. ñëw merci beaucoup Babacar Diamé tey moom la ñu nekkaloon Babacar ñu ngi lay remercier jaajëfal la bu baax a baax ci invitation bi donc dégg ngeen point yi nga xam ne waxtaan nañ ko yëkkati nañ ko ci li nga xam ne mooy émission bi donc Babacar ñu war na si ay point yu bëri bëri bëri bëri ñu ngi leen di jaajëfal li leen jox dig daje incha allah lundi prochain encore une fois ñu ñëwaat ak seen émission avocat même heure même chaîne merci Votre chaîne préférée vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes. Sur